bismillahirrahmanirrahim ahousubillahi min asheytaan rajim jërëjëf cheikhul Khadim suñu yakar. jërëjëf cheikhul Khadim suñu yakar. jërëjëf Seyd Muntaha Mbake. mi fi Seyd Touba. Assalamu alaykum wa rahmatullah Mbok yi ma ngi tuddu cheikh Jaraf Dia. di cheikhu El Hadji Bara Falilu mbàkke toogaloon ko fele ci dekk bu ñuy wax Kaolack jamono ji nak ma nek ci service commercial di def marketing ak communication ci groupe Lamfal communication fi ci Dakar. waaw loolu dafa nek décision bo xamné njitu njiitu mi ak ay ministreum am jël nañ ko ne saxar gi ren dem magali waye buñuy xol saxaru Touba ci magal nek na lo xamné presque ci mille huit yi la nekkone kon nekk na loo xam ne lu yàgg la te am na ci ñoo xam ne tey boo leen waxee màggalu tuubaa te saxaar amul dafay mel ni léeboon ak luppeen na ci ñoom li nga gis nag ne mu nekk tey loo xam ne njàmbat la ci biir réew mi yépp mooy décision boobu nan la ko nguur mën a jële te waxtaanul ak ñi nga xam ne ñooy waa réew mi ndax màggalu Tuuba nekk na bis boo xam ne bis bi gën a màgg ci senegaal bis bi ëpp ay nit ci ndaje ak mbooloo ci Afrique kon tey bu fekkee ne Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba dafa woote màggalam gi yaakaar naa ne nguur gi liy devoir mooy mu yokk jumtuwaay waaye bu ñu nee màggalu Tuuba saxaar du dem loolu dafay indi inquiétude bu bari ci communauté murit bi ndax bu fekkee ne dañuy xool ne at bu nekk saxaar gi dana jël quarante mille personnes quarante mille personnes du caaxaan kon bu fekkee ne màggalu Tuubaa dafa jub si nguur gi war naa mën a jël ay matuwaayam ndax loolu mooy devoiram jël ay matuwaayam yoo xam ne dana mën a fexe toppatoo raay bi ba raay bi jaar fam daan jaar waaye gis naa ne tey ni Macky sàll ak nguuram wàññee tey li nga xam ne mooy demuk saxaar gi ci Touba loolu dafa nekk loo xam ne mépp murit bu ko dégg war na laa jaaxal te ngaa jóg jéem cee wax ndax mbir la moo xam ne kat fi muy nar a jëme màggal gi dafay nekk loo xam ne nit ñi jafe-jafe yi ñuy dund dañuy gën a jafe dundaat jafe-jafe yoo xam ne mooy gën a métti ci ñoom xam nga ne koo xam ne juróom fukki ak sa màggal Touba ngay dem saxaar ngay dugg dëkk ba nga dëkk oto du fa jaar wala oto yi dana jafe trop wala amoo paasu oto bu fekkee ne nag yaag say bagage ak lépp mu nar a jël li nga xam ne mooy oto ñu ne dem leen si tali bi loolu dafa nekk loo xam ne décision la boo xam ne bépp murit ak fépp fu murit yi war a nekk war nañ koo ñaawlu defe nañ ne nguur gi lii rolam mooy jàpp ci bisub sëñ Touba bi taxaw ci bisub sëñ Touba bi dimbali nit ñi ci bisub sëñ Touba tey état bi dafay jël ay décision ñu naan saxaar gi du am saxaar gi ñàkk am googu ñuy wax ne saxaar gi du am nañu xool fan yi nga xam ne ci la ñu génn ñi nga xam ne dañuy liggéey ci raay bi war ci di def seen di ci dund di ci am ay teraanga boo leen xoolee dafa mel ni ñoom d'accorduñ ak décision bi nga xam ne moom la kilifa yi jël bu fekkee ne ministre bi tey dafay jël dogal boobu te woowul ñuy liggéey ci raay bi woowul ñuy liggéey ci biir saxaar gi lu dul jël ko rek ci décision boo xam ne dañ naan sécurité la wala ñu naan déedéet li nekkoon ci bato Joola moom la ñuy bañ mu nekkaat ci màggalu Tuuba dama ne luy dem kaasamaas duñ ko méngale ak luy dem ci kër Cheikhul Khadim màggalu Tuuba sëñ Bamba moo ko moom sëñ Bamba mooy aar ay nitam sëñ Bamba mooy sàmm ay nitam waaye nguur gi lii rolam bu mbaagalu Touba jotee te mu xam ne at ba at lay doon nguur gi war naa mën a def lépp pour taxawu taalibe yi pour que nit ñi mën a dem ci biir saxaar gi waaye 40 mille personnes bu ñu ko naree déversé ci tali bi ñu naan Ila Touba bi moo tax dañoo ubbi Ila Touba bi ma ne soxlawuñu ñun ubbi Ila Touba bi Ila Touba bi ak nuñ ko mën di def it ren buñ ne ñoo du ngeen fayit bu dewee ne danañ fay bu fekkee ne màggal gi passé nit ki nga xam ne mooy xalif bi fa otom jaare duñ ko ko may day fay kon Ila boobu pour nguur gi la waaye waa Touba ñoom moomuñ ci dara lu xam nga conséquences yooyu yëpp mooy dama ne la màggalu Touba at ba at la kon nguur gi war naa mën a prévoir ne at ba at na ci weer sàngam waxtu sàngam màggalu Touba day am ñu jël seeni disposition mais tolof-tolof yooyu bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooy technicien yi nekk ay ingénieur nekk ñuy liggéey ci raay bi nekk cheminot yi ne ñoom d'accorduñ ci décision boobu parce que saxaar war naa mën a dem Touba loolu beneen dimension la parce que booy seet saxaar gi tey saxaar gi nga xam ne dafay dem muy dem Touba saxaar gi entre Diourbel ak Touba màggalu Touba rek la ñuy ubbi voie boobu te voie boobu at bu nekk buñ ñu koy ubbi depuis 1883 bu ñu koy ubbi ñi nga xam ne Dakar Bamako ñoom ñooy yore entretien bi ak sécurité bi parce que Touba bul fa fat bul fàtte ne Touba raay bi yegguloon Touba waaye xalif bu njëkk muy sëñ Mamadou Moustapha moom moo xool ne taalibe yi kat am na liggéey boo xam ne mi ngi jëm ci jumaay Touba matériel boo xam ne bopp doomu aadama mënu ko yenu taalibe mënu ko yenn mbaa sëriñ bi yërëm na leen ci coono boobu nga xam dañ ko nar a tegoo ndax buñ ko santoon taalibe murid yi ñu def ko ñu yërëm leen ci ñoom ñoo fay Touba moo fay traitement bi nga xam ne moo jëlee raay bi Diourbel yóbbu ko tuubaa kon loolu bu ko état bi fàtte kon état bi tey bu fekkee ne daf ne saxaar gi du dem daf ci war a wax waa Touba ba waa Touba jox ko ci ndigal wala waa Touba waxtaane ko waaye du benn nit rek mooy jóg ne non saxaar gi du dem puisque nangam ak nangam ki joxe décision bi ministre bi ma dégg muy wax ne moom moo ne saxaar gi du dem ministre boobu du technicien dañ ko faa teg dong cheminots yi ñooy techniciens yi waaye cheminots yi d' accord uñu bisu tey bi may enregistré émission bi cheminots yëpp ñi ngi grève parce que d' accord ci loolu kon état bi ne revoir at koppeem bu mu wàññi bisub sëñ Tuubaa bi mënu koo wàññi nag waaye na def loo xam ne bu nit ñi ñëwee nit ñi danañ am jàmm mën a dem ci màggal gi ci jàmm ñëw ci seen kër ci jàmm état bi moo war a jël responsabilité boobu moo war a couvrir citoyen ñu war a mën a dem tey boo gisee milliards yi ñu def ci biir teer bi milliards yooyu bi ñu ko defoon ci tronçon boobu nit ñi danañ mën a dem ñëw kon état bi bu mu wàññi li nga xam ne mooy riche bi war a dem Touba.